yeah Mr Alaaji how are you doing alors Alaaji sa introduction sànq bi sama neex na ma trop parce que mm -hmm. que je pense que c'était le 4 avril donc le nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye avait fait une déclaration par rapport ak politique bi nga xamante ni wala programme bu ñu dicter population Sénégal bi ci biir programme bi nag dafa am benn point bi nga xamante ni daf ci insister et c'est un point qui vraiment mérite qu'on s'arrête dessus pour éclairer la lanterne au Sénégalais parce que c'est des termes yi nga xam ne doomu adama yi familiariser guñ ak termes yooyu noonu digitalisation numérisation automatisation et cetera dañuy dégg automatisation des procédures digitalisation des procédures numérisation et cetera alors c'est quelque chose qui est vraiment essentiel de nos jours essentiel dans quel sens parce que dafa bokk ci dundu doomu aadama numérisation maanaam tënkal nit ñi seen paperasse yi ñu doon def tey ma jox la exemple alaaji hôpitaux yi njëndum ticket bi compliqué na trop ku amoon koy gunge hôpital da ngay stressé parce que il faut nga dem quatre heures du matin toog rang ngeen fees fa dellu déjà pour am ticket ñaar suivi patient yi c'était extrêmement compliqué suivi patient mooy nga ubbi dossier bi nga xamante ni ba ngay judd ngay am benn dossier ñu lay suivre xam yow c'est quoi tes allergies yan pathogène nga am yan antécédent nga am et cetera ba saa yoo demee hôpital ak n'importe quel hôpital bu mu doon rek doo am problème tout le temps docteur bi di la laaj et autres nga jóge hôpital beneen bi nga xamante ni man c'est un problème personnel mooy les mairies mairie moom yaakaar naa kuñ fi wax suba wutil extrait de naissance sa àdduna day tukki parce que booy dem mairie di wut extrait de benn ci as de fortes chance nga bañ faa fekk kii defar extrait de naissance ñaar boo ko fa fekkee ka koy signé boo sàgganee ñu ne la dem na ngénte ñetteel ba bu fa nekkee it ñoom ñaar ñëpp bu ñu fa nekkee dañ na la demal 15 heures nga ñëwaat jël ci sa këyit boo jotee këyit bi da ngay gis këyit bi loxo lañ ko remplir ñeent tribunal Alaaji Pape Sidi Fall day juddoo Diourbel nekk dakaar bëgg extrait de casier judiciaire ñu ne ko faw nga dem ba Diourbel déposé ji pour am loolu loolu problème la impôt yi passeport gis nga coono gi ñuy daj jamono ji pour am ko. renouvellement mi ngi noonu paiement trésor police et cetera heureusement que ñu à notre niveau on a commencé on avait anticipé sur la le, le digital la digitalisation. des amendes forfaitaires parce que léegi gis nañ policiers yi ñu ngi yor comme ça espèce rajo bi mais numérique di dugal li nga xamante ni moom mooy affaire yi. Ah, léegi tey ah waaw non amul problème comme sa bos 27 jours lay def moom moo gën a baax suñu bos je suis je suis je suis parfaitement d' accord. bu mën naa la chargé ba mu fees te du ma bougé. waaw <laughs> oh, d' accord léegi ñu ñëw ci l'hôpital yi tey ji sànq maa ngi ko doon expliqué bu ñu mettre en place un système. un système digital buy nekk système unifié parce que y a des systèmes mais malheureusement problème bi ñu am ak système yi ay système la ku ci nekk da nga am sa système bopp da nga dem hôpital tel moom mu am base de données boppam logiciel boppam nga dem hôpital tel et cetera alors qu'on doit en place un système une base de données unifiée pourquoi parce que tey mun nga amee crise hôpitalu Kédougou ñu jëlee la fa indi la dakaar fekk ne on a mis en place une carte mun nañ ko woowee carte patient par exemple carte bi comme carte yi rek lay nekk wala boog ñu dugal information si suñu carte d'identité yi parce que carte d'identité yi aussi est-ce que xam nga ni dafa am puce ba biométrie biométrie mais on n'a jamais utilisé ces puces wax ma ndax mosuñ utiliser puce yi nekk ci sa carte d'identité mosuñ ko man sama carte d'identité ba mu dammee laa xam ne am na puce ci biir di nga ko yor carte d'identité yi ñu ngi ko defar en 2017 si vous vous rappelez bien ñu ngi en 2024 dans 3 ans wala 2 ans carte d'identité yi dafay périmer te mosuñoo xam utilisation puces yooyu noonu alors que puces yooyu c'est des puces qui peuvent stocker des informations cest à bépp information bu nekk ci doomu aadama yi mënoon nañ ko dugal ci carte d'identité boobu noonu tey carte d'identité boobu noonu puce RFID la bu ñu amoon ay lecteurs RFID ci hôpitaux yi comme ni ma la ko waxee nga ñëw yow malade comme ni ñu jëlee par exemple information wu sa blood blood type nu ñu koy waxtee yooyu anglophone. Hmm. groupe sanguin. groupe sanguin. yooyu yëpp jarul woon ñu ko ci bind dañ ko waroon duggal ci sa carte d'identité de telle sorte que tey boo amee crise hôpital Kédougou boo ñëwee dakaar bu ñu jëlee sa carte d'identité duggal ko ci système bi automatiquement dañu am antécédent maladie yi nekkoon ci yow yëpp. déjà numérisation dina permettre loolu nga am suivi boobu bébé bi bu juddoo automatiquement dañ koy ubbil dossier ba bu muy màgg ba bu muy décédé ñu classé ko nit ki sax su décédé pour ñu am certificat de genre de mort du compliqué dañuy dem tirer ko automatiquement bu ñu defaree benn système boo xamante ni c'est pour faciliter l'accès au Sénégalais faciliter l'accès au Sénégal tey gisoon naa ADE di mettre en place ay genre cantine Sénégal service cantine yooyu seen war woon nekk loolu seen rôle xam nga lan tey nit bu soxla woon dara bu demee ñoom dañ koy ubbil compte ci benn plateforme par exemple Sénégal service point sn nga xam ne ñun ñëpp ku soxla extrait de nessance da nga war a dem foofu ak sa téléphone portable mhm. Sénégal service point sn nga dugg ci biir dugal sa login dugal sa mot de passe tu as plusieurs services à ta disposition service bu la neex nga ñëw cliquer boo cliquer ci service par exemple extrait de casier judiciaire laa bëgg boo cliquer tu normalement dois avoir la possibilité de télécharger cet extrait de casier judiciaire parce que fonctionnaire yi xam nañ bu baax li may am na application bu tudd e-solde e-solde chaque fin du mois avant ñuy virer salaire yi dañuy positionner foofu bulletin de salaire u fonctionnaire yi avant dañ doon fees tel ministère des finance da ngay gis ku jóge woon Kédougou Bandafassi yi ñëw ba fii ne dafa soxla ex eh, eh, nu ñu koy waxtee bulletin de salaire am war a toog ñu tureel ko bulletin de salaire mu yóbbu ko ambassade wala et cetera et cetera alors bu ñu amee système boobu dina facilité loolu nga jógee foofu dem ci mairie yi exactement la même chose xale bi bu juddoo dañ koy dugal ci système bi buñ ko dugalee ci système bi aussi dina permettre bu soxlaa casier bu soxlaa extrait de naissance baayam du soxla di déplacé wu ci mairie bi ñu bëri dañ may wax ok comment va se les signatures et cetera la signature électronique existe depuis plus de vingt ans on utilise la signature électronique dëkk boo dem ci àdduna bi tey boo demee en France nga dem en Italie tu as besoin de papier voilà. boo amee sa fichier périodique yow ñaata yoon ji maa ngi leen di signé nii. mais mi ngi noonu yow ñaata yoon lañ la yónnee ay contrat yónnee wuñ la ay contrat nga signé ko sa bopp. maa la ko wax. faa nga tiiree ko. man Fall signé rek laay def. te signature bii nii ak signature est tu as la possibilité d' automatiser am nga possibilité def ko ci token am nga possibilité def ko ci clé USB am nga possibilité di ko générer automatiquement am nga possibilité def sa teg sa empreinte nii rek. mu authentifier ses signatures maintenant il y a plusieurs types de façon de gérer de gérer ça hôpitaux yi passeport yi impôt et cetera maintenant lim ñuy permettre avant mu ñuy permettre sànq yaa ngi may wax faisabilité yi. foofu ñu ay serveur on a ala jënd nañ fi benn data center. yóbbu Diamniadio. mu nekk Diamniadio bu extraordinaire qui a une capacité. hors norme macha allah. fii si norme mais ba léegi utiliser wuñ ko parce que xamuñu lan lañ koy doyee. jour bu ñu koy inauguré ma dégg Cheikh Bakhoum ak président Macky Sall ñuy wax yeneen man je me dis que ñii est-ce que comprendre nañu en réalité li ñu jënd ba indi ko fi. parce que ñu ngi soog a am lu ñuy soxla woon li ñuy soxla ci information jëm ci 18 millions de Sénégalais on peut les stocker là-bas. jam ju tamit am na un super calculateur super calculateur boo nga xamante ni ci Afrique de l'Ouest moo fi gën puissance moo fi gën a nekk au nord boobu ba tey boobu aussi kenn utilisé wu ko donc on a les serveurs on a les ressources on a l'électricité quand je dis l'électricité je dis l'électricité brute le soleil l'éolienne xaw ma ñaata kilomètres de côte les barrages. de barrages de gaz le pétrole. pétrole le gaz qui vient donc c'est pas en fait les ressources matérielles qui manque pour man ça manque pas beneen bi ressource humaine bi gis nga la euh, l'automatisation wala la numérisation on en parle depuis que man ba may jàng di def BTS en 2000 de 2008 à 2012 imagine nga de 2000 2000 boobu nga xam ne même Macky Sall nekkagul woon président boobu ñu ngi doon am ay projet de digitalisation des états civils suñu écoles yi 2008 ba 2012 Macky Sall sax nekkagul woon président boobu étudiants yi amoon nañu xam-xamu defar ay logiciel de digitalisation am nañu ko defaroon ba présenté ko seen projet de mémoire 2012 ñu ngi 2024 ça fait 12 ans maintenant donc ressources humaines bi am na fi. am nañ nit ñu xarañee am nañ nit ñu xarañee noonu. am nañ. matériel ressource matériel bu xa bu xarañee noonu. waaw xam la moo tax mënul nekk parce que gars yi nekk mairie sooy jël benn euh, feuille nii nga soxla si ñoom benn feuille da ngay da ngay da ngay ceebal da leen di da leen di jox 2000 léegi nag yooyu moo tax gars yi duñ nangu affaire bi jaar ci yoon parce que bu jaaree ci yoon du du am lu mu dépense. alaaji du ay deux cent wala quatre cent mooy tax ñu dépense xam nga il faut moo tax ma ne la. non mais du fekk benn yoon rek lañ koy jot ci jour. waaw c'est c'est ay centaine de fois. waaw te déjà loolu sax timbre bi la woon. yow fi ngay waxee xam naa ko. parce que maanaam waxuma timbre bi de. xam nga am na luy dugg ci keesu état mais boo dikkee nuyu. nuyu leen ak 5000. waaw moom laa de wax gaaw fat fat ngay jot sa lépp. waaw léegi c'est ça le problème xam nga ce qui manque. waaw c'est la volonté déjà qui le patriotisme. muy deuxième problème c'est ak la responsabilité de chaque citoyen sénégalais quand je dis chaque citoyen sénégalais celui qui vient demander les services et celui qui offre les services ñaar ñooñu le jour où ils accepteront ou bien le jour où ils diront ok dañuy bokk ci processus processus de changement wu dëkk bi affaire ça va ça va passer comme lettre à la poste parce que xam nga aussi même par exemple PDA yi ñu déployé ci kaw tali bi di permettre nit ki muy fay sur place jot kayitam sur place day yokk transparence trésor public dana xam en temps réel ñaata moo dugg yow soxlaatoo dem fële mais tey boo ñëwee agent bi ne la batterie bi dafa faible xaw ma batterie lan nga ci mën alaaji loolu de man mii maa ko fekkee kon jeex na léegi alaaji réew bi daa naqaree defar rek wala ñu ne la amul réseau lan nga ci mën mënoo ci dara yàlla kese moo xam léegi tamit digitalisation dafa am lu gën lu gën a extraordinaire lu muy permettre contrainte de temps contrainte horaire lay dindi contrainte xam nga ñu ngi wax ay pointage et cetera pour man yooyu c'est pas très important pour man parce que man je suis dans le futur pourquoi ma wax la contrainte horaire mooy huit heures dix sept dix sept boo demee mairie bëgg extrait de naissance dañ la naan wàcc nañ alors que bu ñu digitaliser affaire yi vingt quatre heures sur vingt quatre tu as accès au service mun nga toog ba miin bi soxla extrait du ko télécharger sa extrait sa kër ngay am sa imprimante tiré ko mu génn su la neexee sept heures donc nit du jóg yow doo ju doo am obligation jóge fii sept ne da ngay dem Diourbel avant midi une heure pour mën a dem ci tribunal ñu defaral la sa casier judiciaire nga ñëwaat soxla woo loolu parce que dindi na contraire heure ñaata loolu yoon lañ dem police ne dañuy légaliser da ngay dugg ci buntu bi rek ñu ne la eh na on jëlatuñu kayit loolu dina deñ dépendance boobu dafay deñ déjà beneen bi dafay indi transparence et responsabilité c'est quoi transparence et responsabilité ñaata nit alaaji keroog seetaan naa sa émission bi la ñuy jaay seeni ay kayit ñeneen bari dañuy jël këyitu Pape Omar Keita jaay ko nangam diw Pape Omar dem ba yegg ci war a def bac mu ne ko say këyit baaxul alors ah. que ah, système bi dafay dindi loolu completement parce que transparence totale lu waay def day am trace responsabilité mooy ku ci nekk ku war a intervenir ci système bi da ngay am benn niveau d' habilitation niveau de responsable yow agent de saisie nga profil agent de saisie lañ lay créer nga saisir yow chef de bureau nga validation ngay am kii super validation et cetera kii administrateur les choses sont très claires et y a des logs y a des suivis et donc il y a de ce que a annoncé Absolument. le président de la République. et c'est quelque chose qui va nous permettre Alaaji de gagner énormément de temps ak coût on va économiser optimiser tellement les choses vont aller tellement vite gis nga les pointages les heures ñëw xëy heure ñëw lii nii buñ ko tegee ils vont voir que les choses vont marcher te duñ soxla nit ñi di xëy 8 heures wàcc 17 heures adduna bi weesu na xëy 8 heures wàcc 17 heures Sénégal moo toll ci débat xëy 8 heures wàcc 17 heures day dem aux États-Unis seen kër la ñuy tëdd ci kaw lal yi di liggéey recrutement boo gis léegi sax on te parle de système hybride c'est-à-dire bu la neexee nga liggéey bu la neexee nga bañ liggéey parce que on a tout digitalisé xëy 8 tali bi xat ñëpp dañoo mën a demandoo Dakar à 8 ba may ñëw fi xaw naa tee moo tax il faut ñu trouver ay moyens yi nga xamante ni ce n'est pas de déplacer les gens mais c'est de gagner du temps et de l'argent nañ njëkkee lii soog a waxi pointage li ma ci war a wax dafa bari tellement mais su ma ko continuer fii du fi xaj xaju fi sax dama nar nekku siis te loolu maintenant ce qui nous manquait c'était la volonté politique. man aw ma ndox de. Euh, am nga kay jox ma bële. Euh, yaa ndox nga yaa euh, nan la tuddati ma ni ce qui nous manquait c'était la volonté politique et aujourd'hui nous l'avons avec. Euh, et la population garder l'espoir avec euh, le nouveau président de la République. et les Bassirou Diomaye Diakhar Faye. alors les acteurs. et les acteurs donc il faut il faut il faut il faut bon je pense que fii Sénégal ku ñu fi woon ne la kaay liggéey ngi nii. liggéeyal sa réew jaamul yàlla ci nangam. Mm. di nga ko def. je pense je suis optimiste. njortu na rafet naa njortu ci loola. Mm-hmm. maa ngi ci euh, négandiku léegi daal na topp mbir yi. Mm-hmm. lu ci am ci évolution rek. Mm-hmm.